at force damay fàttali sama njaboot bi sama doom sama doom yéen ñëpp da fàttali bu nu bu commencé na fresh bi période bi lay génn li nga xamante ne benn yoon lay génn ci at bi seen bos la. temps mu ngi jafe parce que lu jot a génn bariwul fexe leen ba ku ci nekk sama njaboot bi yëpp foo leen commencé ba foo leen yemutee 14 régions yi Sénégal yëpp ku ci nekk fexeel ba am ci sa litre bépp doom bu nekk fexeel ba am ci sa litre bu nu kap seen maman pare na nag tey laa war na bàyyi picc mais fii ñun day taw ba dafa niis parce que picc boo leen bàyyi par duñu xam direction bi kuy xeex te xamoo looy xeex mooy jaaxle te ki nga xamante danga xam li ngay xeex pare te xam am sa dëgg doo jaaxle doo gën a armé wu gën a pare di xamal ci 14 régions Sénégal yépp jéejee yi bari na yoxos yi bari na suur gi bari na tutu bi na ceebu mbay baa nga fa ku ci nekk na nga jënd stocke nga sécurisé tey ñun en tant que africain dara duñu bett comme ni ko seen ancêtre yi doon doxee li nga xamul moo la jaaxal mais li nga xam du la jaaxal njoomu life mbera pani gars yi almaan njoomu life mbera tam bu ñu fan bañaa dimano waaw sofu maa ngi live danaa la alamaan mera deni panigai alamaan komi maunu safe ko panigai alamaan yom live mera wàlle sama gars yi téléphone yëpp lañuy ñu woote ndoor ku ci nekk foo mun ta mu jàppani tingoo ko peret <laughs> yow laal la kécc maa ngi direct du gis ne ana man ngeen bëgg xana maa ngi maa ngi live mbera ba pare nga dem fay déedéet di nga fay fukki am 14 raison yëpp sama njaboot gi bu nu kab piratam génn na commencé na ku ci nekk sa benn litre ku xam li ngay xeex doo sonn te doo jaaxle ku xamul lu muy xeex moo jaaxle ci tiit ñun dara duñu bett dañuy gànnaayu toog di leen naan seen maman taasu pare na maa ngi ci direction comme noonu ko tey laa nar na bàyyi picc yi pour 14 régions Sénégal yëpp parce que sama njaboot bi mais comme que tey fii ñun California mi ngi taw depuis démb taw gu métti ba pare nu mu niisee mun ñu bàyyi picc yi mais maa ngi ko war a bàyyi ci biir semaine bi di leen xamal ku ci nekk dara mun a bett gejje gi lépp ku nekk loo mën a jënd jent ko mu wow. bay ko sa kër parce que loolu la seen ancêtre say doon sécurité make sure ak nu xeex xeex jublu ci yeen xale du ñuy xiif te duñu mar te kenn du xiif kenn du mar ngemb ba ngeen dëgër takk ba ngeen dëgër ndaxte lu gën a métti mooy ka ngay puus mi doxal yoon ba dem nag ba ngeen sës nag xam ne carrément da ngeen a uññee ko xamoo leen fa leen koy wéer bëgg ko wéer ci ku leen defal foofu loolu leen fa fipp fu ne doole gi yéen ko moom akay ay mit yeen la jox doole seen ancêtre yi ngeen wo ba ñepp geen yeen lañ jox doole ba pare takkandeer xeexkat yi yeen lañ ba rañ vivant xeexkat yi amazon ñi ñi nekk ci terrain bi yeen lañ àndal ku togn moy ragal mais ku togn do ragal man bina sama njaboot ki man ma gëna a fier ci yeen la ngeen woote bu loon deug rek ñun du leen parce que ñun ay àttekat lañu ay ta suñu dëkk lu suñu di neex a neex suñu bos a ko gën a neex Macky Sall doomu Sénégal la yéen ñëpp ay doomu Sénégal la benn moom bu ñu toog di ko seetaan fii ci kawam di yàq la Sénégal ji jëmbët sàggan bu nekkoon ci Sénégal pour Sénégal bu mu samp seen ancêtre yi ñëpp wane ginnaaw am na joto nag mayee nag bàyyi daw mais mu am ñu résister soo ñu résister ñooñu nag ñoo tax tey jom nekk Sénégal ba léegi. mu am ay jigéen ñi taxaw résister ba ci the last man standing ñeneen yi ñu taar seen bopp ngir bañ gàcce ñeneen ñu xeex ba fa mu jeex dalee mujjee ki bi yóbbule mais ba leen kidnap bi yóbbu léegi indiñu seen koor yi xam ñu fu ñu ne ba pare xamuñu kan a génn si kan dellu si donc jom ak ak ndax doole ak résistance bu yàgg nag Sénégal kenn mënu ko dindi benn nit mënu ko dindi armée mënu ko dindi armée bu mënoon xeex ci Sénégal ni ko noonu Sénégal bene jigen ko sànc samp borom ñaari sëri ñuul yi mu tak ben bi ci dund ben mo wëbb donc lu jigen jité jamm rek lay jité te jamm jàmm fay nek ku jëm jëm ba sonu da ngay delluwaat toog nga laaj sa bop lu lutax lu ben jigen la ba commencé depuis Égypte di samp di samp mo samp Sénégal fa la des Sénégal la sànc këllam mu dess fa donc keul googu mu sànc mu nek jamm kenn mënu ko toj bu ñu ko mënoon toj tey ñun du ñu doon ay dooneel bu ñu dellu si donc sama njaboot bi xeex bi lu ngeen ko jonkalo ñoo leen jiitu te taasu ci yoon. di leen xamal am fàttali bu nu ko commencé la litre 500 la moom la la seen ancêtres yi sampe yéen ñëpp foofu la leen naxee ñi ci leen ñu mën a leen faible ñu mën leen ngeen mën a faible ba leen déppee. ngeen bàyyi seen yëf yi ngeen moom ñi leen a jox ay discours yi négatif propagande ba kidnappé seen brain kidnappé seen esprit waaye lu ci gën a am doole mooy comme li mu wax de jigéen googu bu sàgganoon bu nekkoon jigéen bu tàppe te Sénégal kàttan du fa nekk ba léegi ba ñu jël lay seen esprit complètement mu am ñu résister donc résistance du lu bees résistance moo tax Sénégal tey mu nekk tey histoire bu mag résistance moo nekk tey moo tax tey Casamance tey suñu royaume kenn colonisé ko des fa ba léegi ku ne résistance pour Sénégal nga woote bañ ci Sénégal la dëpp ak jom kenn mënu ko fa dindi donc Macky Sall menn mi du mun a dindi ci Sénégal tuuti na trop pour yàq ko ak moo ci tuuti nit mun nga néew yi ponkal mais lu tuuti nga mooy dafa oyof mënoon na gën a rafet. ñun ñëpp ñu ci benn doomu Sénégal gaañu ci ñu Macky Sall gaañu ñu am de tonné gaañu bëgguñu sa suñu jeunesse di gaañu mais bu dara demee nag ba xam ne fii am na solution ba nga xamante ni il faut mu am kenn ku ciy génn àdduna gi dëkk bi mën a sauvé wu dañuy taxaw fa dëkk bi sauvé wu dëkk bi moo ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal balaa moo doon Sénégal population bee tax bu seen sommes jigéen ñi accepté métit te du jaaxam ñi leen def lu leen

donc ñun jeunesse bi lañuy ànd te xale yi njaboot bi la ñuy gunge man ngeen gis mais gisoo leen ñeneen ñi nee leen ndox bi tuuru na yéen a woote xale yi nag ñi naan litre bu nu ko yomb na trop 500 la ma nga Casamance bëri bay bëgg a dee fresh bay bëgg a dee ku ci nekk utal sa litre kër goo mënta nekk ci jeunesse foo leen mënta nekk tuural fu la neex nga naan lu la neexee naanal ba ne dur yéen a ñëw nañ pour gunge leen. ku nek Rasin racine ba sant dëkk ken munu ko buti ak lu fen fen fen gene fen ci dek dañuy sono sen bop deug bobu génnee ken du ko xëccoo yeneen ñëwal sen bop campagne pour ñen top ñu mais yene gis sen bop ni xam ne la esprit ken munu ko depp da ngeen ci gis sen bop ngeen xam ndek li bok na ci yéen ngeen jóg fagaru ken du taal senegal deret du fa ku jëm ba gis rek day dellu ginnaaw ragal ay xëbalaate la ay duulu neen la dara du am fagaru ngeen gànnaayu toog ngeen toog fu ngeen toog comme ni ngeen kippee kaam ndaxte ba ngeen dalee xeex jàmm gi mënoo ngeen yëngat fa mu gën a méttee defoo leen ko ku leen ñëw fekk da leen a tooñ te ku leen tooñ yéenay mun tout temps parce que da ngeen darlu nit na bu amee dëgg ni lay xeexee ku la tooñ fekk si la deuxième maata bu kano doon reyee jeexal nañu seen ancêtres yi moñaak bu doon reyee jeexal nañu seen ancêtres yi lu ñu armé wu armé wu indi seen gànnaay ñooñu seeni frère lañu ak seeni sœur yéen a bokk benn kër lu bi ngeen a jógee ñun bu leen dëppee ñoom dañu am doole. parce que ci benn ween bu leen nampal moo nàmpal ñoo ñëpp ñoom tam da leen a téye otage utiliser leen pour entrer benn nit mais gënoon leen te bëgguñu ko nit ki nag. xamul koy woo te bul xam naka ngay woo dina jublu fële fan koy joxoñ walla ci yow kenn xamul waaye dëgg nag yéen nii yor dëgg bi jeunesse bi ni ngeen di xeexee fi ngeen taxaw foofu la seen baaraas na gën a aju na gën a dëgër ñay tooñ tamit bu ñu ñemee nañu gën a def avancement nañu teg a move ndaxte ñun accepté ñu kiy tooñ ñun ñi moom këll yi accepté ñu kiy tooñ waaye tamit képp ku dof dem defe ne kël lii da ngay dem utiliser ko pour affaire politique ngay jéem naan da ngay tuur ngembul ba mu dëgër ndaxte loo uññi sa bopp loo fa fekk yaa ko fa yaa ko tufli seen taasu boroom këll bu mag bi ñeenti maa ngi ñëw jeunesse bi yéen tax ñëw fexe leen ba lii am bi na bu leen ci kenn nettali lépp pour sàmm senegal bi yaa xam homme de tenue yaa xam civil nga yéen ñëpp ci moom ñun du ñu sànni mais spirituel vote bi

am na ñu leen humilier mais ñi leen donn ñi taxaw seen côté ñoo ëpp que ñi leen rusu moo tax du ñu mës a dindi seen mosoo teg ko fi dañoo kontaan donc yéen a woote Sénégal Sénégal ñëw na wuy si leen ma waxam leen encore topp ajuma topp leen ajuma Sénégal ngeen woote benn bu ngeen topp des fois damay gis ñun ñun ñi taxaw di naan ajuma ajuma dañoo xamul ku xam doo ne ajuma ajuma ajuma mais tey bu nekkoon ci yéen kenn na yenu ci comme lu mu yenu tey doo leen nooyi doo leen sori. mom lañu ñu xam ni lu ko jam ne du ko du parce dañ ko préparer ñun ku ko yóotu da ngay sonal sa bopp ku ko jam doo jàll donc nan na ñëpp nangu toog dal ku bugg Sénégal gi ak lu la fay fay fay da ngay xam da ngay taxawee na sa taxawaay rafet pour sa bopp loo mënul bu ci jéem sa bopp te tamit comme lu comme lu wax de gis naa fële sama ki dirimay étudiant yi seen slogan baax na ndax dañoo yëngatu kële duul ka màcc boobu di identifier boppam mu defee ne moom doomu Casamance la mu ngi rey ci boppam moom da ci concurrence la te xam ñu kan lay concurrence te fay concurrence ul de parce que xale yi li ñuy def ni ñuy dompotee ñu mën a génnee seen xaalis bopp jox leen ko dee leen gën a dompat xale yi man d'accord naa ni ngeen ko doxalee parce que seen alal la seen xaalis la Doudou Ka bu demee sàcc indi jëmale ko na ci soo di jox leen ko lu baax la parce que ajuma bu nekkutoon na Ziguinchor foofu noonu du mun a génnee concurrence bi di sàcc jox leen dafa leen def comme ni noonu def dek di leen di katt di leen di fay non non léegi comme que ajuma mu ngi fa day uti moom fu muy changé you know pour nekk ci spotlight bi dompat leen comme lii mooy slogan bi yéen boo leen dompatee mu génnee xaalis jox leen génnee la dompat bon génn leen ci mbedd mi yuuxu rek mu ñëw wane boppam te lu muy wane boppam seen xaar kon ko seen xaalis yéen a ngi koy jot rek bravo xale yi man sama étudiant yi ngeen so bëgg d'accord naa li ngeen def génnee na dompot yëngatu ngeen dem encaisser defar foofu fu ngeen di dëkk parce que loo leen fa defar ak loo leen fa fay yépp sama njaboot bi moo fay nekk ma d'accord ci loolu bu baax parce que seen alal la seen xaalis la seen yaay ñoo doon jaay caaf ñu ñu cotiser xaalis boobu njël ko di ko féetale benn boor day leen dompat duudukat di génne sàcc xaalis bi leen ko jox kontaan naa félicitation Diop wér doon xamal nag sama waa Bignona Bignonnoise yi gan yi nag nañ ñëw nar na ñoo bari bunt boo leen gis ku fëgg rek ubbi leen ko mu tëdd bu leen tëj bunt yi dañoo ne da ngeen mën gan koto ndey de fausse lady koto jatu saane princesse yóbbantewu naa leen ci Bignona Bignonnoise yi gan yi ñu ngi ñëw ay oto ñooy dugg si fu nekk pour ce ancestry voie de la paix donc ubbi si vous yi nag fu ñu fëgg bàyyi faire. bu ñëwee bu des choses a commencé à faire fa la njëkkee lu jëm ci jàmm lu jëm ci politique lu dem jëm ci conflit lépp ñàkk a ñàkk déggoo yëpp bi ñono lay commencé choses. bi ñono commencer dox faire di Vous ñëpp ci à ñëpp des choses. de faire des ñëpp ñëpp faire des ci jàmm gi Sénégal bi foos moo ñu ëpp solo donc di leen xamal ni que xale yi gën leen a gànnaay dañ leen fàttalik encore bu nu kap période bi la benn yoon lay am caat gi leen ba ku ci nekk am sa litre mais raas sama njaboot bi ma kontaan ci yéen.